donc euh, voilà il faut beaucoup mais mais avancer pour a donc wax naa ni gars vous len topé da ngay dem ba nga xamni fekk ay yeneen qui xat ndjay ngeen parce que gars dañ ñi ñepp nga lay déglu mag vous lay déglu man nak bëgguma ñu ay mag kilifa kilifa voilà Sénégal am nañ fi ñi ñuy woowee kilifa du ñu génn mukk tànk Macky Sall nekkul nekkul ñu ko ñu sonnal ko wala ñu amee ko wala ñu kepp ko ci la ñuy doog a génn di wax donc Sénégal dafa bëri ñi ñuy woowee kilifa mais ay lañ man man jàpp naa ne yéen a gën a nekk kilifa sax ñi ñuy woowee kilifa donc man kilifa du âge nañ wax ay mag a ngi lay déglu voilà wala ay kii a lay déglu mais ay kilifa lay déglu déedéet déedéet li ngeen wooyee kilifa wooyewu ma leen kilifa kilifa yu tux yàmbaa kilifa yu naan sàngara kilifa yu tëddee ay caga kilifa yu sàcc alal réew mi Macky Sall na ngeen kilifa la te pourtant moo dàq sàcc ci monde bi Macky Sall na ngeen kilifa la day day njaaloo Macky Sall na ngeen kilifa la léegi kon doon kilifa du at kilifa du kilifa da nga ay responsabilité ay comportement la donc kilifa du am ay troubles comportementaux donc yàlla nañu yàlla musal ci ñi ngeen di wooyee kilifa ñun bugguñu doon ñoom bugguñu leen donn bugguñu sax xool ci ñoom nan la ñuy doxee ay kilifa boraacoo ay kilifa bandi salte et cetera et cetera donc voilà donc comme ni leen ko waxee voilà donc Dior Diagne euh, léegi li nga xam ni mooy euh, gis nga fi nga xamni société nationale te lu leen de waxoon naa société nationale de recouvrement bi gouvernement bi yoron omega mega oh, lo lo lo lo lo lo s'il vous plaît c'est chaud là Ouais. société nationale de société nationale de recouvrement bi Macky Sall bu mu ñëwee da ko jël jox ko wa BDK BDK jàpp leen BDK BDK moy banque banque de Dakar banque de Dakar famille Faye Sall Timbo ñoko mom. c'est pour leur blanchiment d'argent ils ont volé des mille mille mille milliards aux Sénégalais ñu créer seen banque bu ñu woowee BDK te tey laa leen expliqué lu tax léegi BDK fu mu nekk foofu foofu moo nekkoon SNR société nationale de recouvrement fi nga xamné fofu la maram Faisal Sall demoon pour ñu bal papay ki nga xamné moy Ousmane Diagne moy papay Dior Diagne yéen ngi suivre action yi. topp leen li ma leen di wax de benn par benn ngeen xool seen gars yi Faye Sall timboo bandi salte yi ñu doon nan la ñuy mafiaayee nan la ñuy sàcc alalu réew mi donc ñoom gouvernement ñoo créé seen banque Macky sàll ak i famille am Faye Sall Timbo ñoo moom ka bu leen fa dugal seen xaalis xaalis argent sall dañ ko créé spécialement pour leur famille pour ñu mun blanchir sen xaliss di ko dugal ci banque yoyu di lekk PDK di fa jëlat ay milliards di ko fa duggal donc ñom ñoko mom bu fa kenn ubbi compte moytu leen leen parce que banque Macky Sall la banque famille Faye Sall Timbo la mom mo ne woon ancien siège yu euh, fii nga xam moy SNR moy banque Aliou Sall amna gasama Gassama dinaa leen indil ku tuddu Gassama Cheikh Gassama j'appelle Cheikh Gassama moi, bras droit ou Aliou Sall Nous, fait fay siéger nous, ñoo ci conseil d'administration la famille Sall Timbo Gassama nous ñoo gérer conseil d'administration. place de l'indépendance nous, ñoo fa gérer Cheikh Gassama le bras droit de Aliou Sall depuis Fatih. la famille Gassama moi fa en tant qu'actionnaire et conseil d'administration attention moytu banque attention c'est la banque à Alissal, c'est la banque à Macky c'est la banque à Gassama Timbo ay actionnaire lañ fa ay ñom ñoo ci conseil d'administration Amna ku fa nekk tamit fa indi c'est un espagnol il s'appelle Alvaro Ashwell Alvaro Ashwell c'est un espagnol le nom? nom nom mu am boîte bu tuddu Cantum Cantum Cantum Alvaro Ashwell un espagnol un boîte de Cantum actionnaire là-bas, administrateur nous avons venus pour blanchir tout l'argent sale tout l'argent sale du Sénégal donc nous avons venus banque pour nous Légui, kan Alvaro Achuel bi nga xam boîte de Cantum un espagnol nous le ñu le Dantec hôpital la d'Antec, teg dem leen ngeen xoli Alvaro Achuel bi nga xamni mo nek BDK ak ñom Aliou Sall ak ñom Cheikh Gassama nek ay actionnaire nek conseil d'administration bi koku ci espagnol bobu lañ jëlaat kantum bobu nonu di boîte bobu nonu espagnol mom lañ jox mo yore le daan teg <laughs> koy gérer donc ay milliards la yu genn ci ñom Macky Sall mané la bokku na ci ñu ëpp alal ci monde bi alalam du genn c'est la famille Faisal Timbo. Des milliards qui tournent, des centaines de milliards qui tournent autour d'eux. En complicité avec des, des, des, euh, euh, euh, libanais, en complicité avec des blancs. Et noirs, à part leur famille. Donc, le crime financier, le crime économique, il faut que L'entreprise s'appelle Kantum Donc, vous marché, yep c'est Macky Sall moi qui gérer c'est l'administrateur seetluwu une bonne affaire eh gars excusez-moi les gars les gars encore une fois je vous demande pardon excusez-moi excusez-moi excusez-moi excusez-moi s'il vous plaît juste quelques minutes s'il vous plaît juste quelques minutes et je vous laisse continuer votre vie demain vous êtes là vous pouvez venir faites ce que vous voulez mais s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît merci beaucoup donc euh, on peut se comprendre entre nous ok donc euh, voilà li nga xam ni moom boîte bobu ñu jël ko wëlbati ñu boîte euh, espagnol bobu wëlbati ko ko mom ki nga xamni moy entreprise un ñu ñu joxat ko ki nga Alvaro Achuel ñu joxat ko la Dantec mu le projet bobu noonu nous jël ay sénégalais yi kaas nous leen ci donc nous leen ben Macky Sall lan mo tax bu ñu alalu askan wi corps de contrôle Il nous ko du

saa yi ñu dóoree Macky sàll moom moom 80 pour cent yi man leen añu na ma billaahi wallaahi wa taalaay ñun lu ñu metti mooy dañ ciy taq te duñ sax lekk lu bëri 94 milliards Mamour Diallo mu ne ma lan moo tax Macky Sall dàqul Mamour Diallo mu ne ko loolu moo ma jaaxal mu ne ma parce que moom moom 90 milliards yi Macky Sall moom moom 90 milliards yi loo sàcc 29 milliards Mame Mbaye Niang lekkul lépp makki sàll mooy lekk 20 milliards yi jox ko 9 milliards mu ne loolu moo waral Macky sàll kenn du sàcc ci moom mu lay bàyyi dafa am pour pourcentage moo tax du jàpp kenn mu ne boo gis ñoom seen bopp ñoom ma wax de lii ñoom ñoo ma ko wax wallaahi ñoo ma jël ci suuf ne ma ñun dañ ci takk te lekkuñu ci lépp loo gis ñu na ko fii Macky sàll moom moom 90 pour cent yi moo tax ngay gis Farba Ngom ñu jàpp ko ak ay milliards kenn laalu ko kenn jegewu ko ben nit sa sàcc fa presque 1 milliard c'est parce que Macky Sall da ci am mo ci ëpp da ci am luñ ñu dividende da ci am profit lolou motax amul ben nitam buy satch bu Macky Sall di tëj corps de contrôle yëpp dañ koy épingler mu teg ci kuudam parce que tout simplement mom mom 90% des intérêts donc lolou motax ñom nenañ ay 1 milliard lañ ci am ay 2 milliards luñ satch yëpp Macky Sall moko koy ci compte. Amadou Sall day liggéeyal Macky Sall Amadou Sall est un employé de Macky Sall Macky Sall blanchiment d' argent yi muy def da ciy jox Amadou Sall Amadou Sall tam am ñeneen ñu muy jox ñu blanchir ko moom mooy ñoom Mansour Mansour automobile et cetera et cetera donc Macky sàll bokk na ci ñu ëpp milliard Afrique Afrique Afrique bokk na ñu fi ëpp milliard Macky Sall da ay prête non prête non lu mu yor ci alal buñ ko tàllaloon Sénégal mu laal asamaan si ñu ko tegaloo woon mu laal asamaan si ay milli milli milli milli mu gémmiñ sax mënu ko wax la la Macky Sall loolu motax du japp kenn kep ko satch day ñëw 94 nga satch jox ma 90 yobul kaat nonu lay liggéey ak ñom loolu motax ñu né ñom duñ ci lek dara cioli day bëri mam bay fayal li yow ki fayal li Mamour bay fayal li 90 motax cent yi du len laal dañuy ñëw jox ko mu duggal kontam ñu dem ci BDK mu joxe tasaaroo kenn doomam bi Amadou Sall c'est un chômeur multimilliardaire la mais c'est un employé de son père chaque jour dafa war rendre compte son père chaque jour dafa war rendre compte son père donc jàpp leen loolu kon ngeen xam ko ni Amadou Sall travaille pour Macky Sall Marème fay Sall mom il travaille pour elle euh, et cetera et cetera donc loolu mom ngeen japp ko donc euh, voilà donc ngeen japp ni da ciy liggéey euh, mom mi di Macky Sall loolu motax du len tecc da ngeen di yuux ba du len tecc Macky Sall ku beuri alal la ku beuri alal dafa lum mu yor ci alal kenn xamul kenn buñ ko tàllaloon mu laal asman bu buñ ko tàllaloon mu laal asamaan ñëpp ñuy laajte mais lan lay doy xaalis boobu mag Macky Sall pauvre la du doyal mukk des milliards et des milliards du doyal noonu lay def ak gars yi moo tax du leen tëj parce que dañ leen di jàpp flagramment quatre-vingt-dix pour cent yi da koy jël jox la ñoom ñoom ñooy jooy sax ñoom ñooy jooy nag ñoom koo ci dóor rek mu génn jël la ci suuf mu laa ma ñàkk sama ndey billahi 94 milliards yooyu lekk ma lépp ma 90 yëpp Macky la ko jël 4 milliards la ma jox 4 4 milliards yi laa yóbbu kii lu tudd Mame Mbaye Niang ne man 8 milliards laa yóbbu 40 milliards yëpp Macky Sall la ko yóbbu ñun ñun dañoo sonn ñun ñuy bëgg a dee ku wax dee ku ko joxul mu tëj la de boo jëlee boo détourné alalu réew mi boo ko joxul 90 pour cent yi da lay tëj par force moo tax boo ko joxee mën na la def ay ministre da ñëw joxaat la post parce que da ko jox parce que sàcc nga joxaat ko ko donc loolu moo tax yooyu moom boo leen di xaar pour mu tëj leen du leen tëj donc voilà léegi nag de euh, xëy na ma indi leen kër gi parce que joor Georgiane kër gu mu nekkoon noonu tam xam day sàcc dafa bëggoon jël këru jàmbur ba ba mu bëggee jël kër jàmbur ba nag ki nga xam ni moom mooy euh, borom kër ga ëpp ko loxo ëpp koy mbokk jóg rayante ba nangu kër gi mooy kër gu nekkoon ville kooko nga koy tabaxaat jàppale ni kooko nga génn na fa joor Georgiane mi ngi cité assemblée cité Mbàkke yu fay foofu la dëkk léegi cité assemblée foofu la ñu wut mooy Mamel. waaw voilà boo leen demee foofu dangeen fa fekk joor jaañ ak ak taatu plastique am ya waaw Antoine daa dawoon mais ñëwaat na ña nga foofu di taxawaalu ci cité cité assemblée mooy cité Mbàkke yu fay ca Mamel boo leen demee foofu da ngeen leen fa fekk Antoine ñàkk jom ak Dior Diagne ñay taxawaalo ko wëndaalu. voilà bés bu ñu leen war a wër wantit leen ci temps bi incha allah foofu la ñuy dem ñi ngi foofu donc ñoom am nañ famille.

wax nañ leen ni gis naa gis ngeen mafia bi ma waxoon Macky Sall def na léegi gouvernement bi dootul jëndati oto gouvernement bi day loué oto lan moo waral loolu parce que oto yooyu Amadou Sall moo koy joxe te Macky Sall moo jël ci milliard am Amadou Sall da koy liggéeyal jël ay milliare jënd ko ay oto jox ko Amadou Amadou di loué gouvernement bi muy jël ay milliards ci caisse gouvernement bi di jox Amadou comme si Amadou mooy loué oto gouvernement moom mooy loué Macky Sall barki bi génn na nee na léegi gouvernement bi jëndatul ay oto ndax oto yu mu jëndoon yëpp mi ngi ci parking wu Amadou bi moom moo nekk parking wu palais palais de la république donc oto yooyu mënuñu chaque année ñuy jënd léegi moo tax Macky Sall gis oto yooyu mel ni oto yi dañoo lamb léegi mu ne oto yooyu Amadou xam lu ñuy def damay wax gouvernement bi oto bu mu yor léegi da koy loué léegi kan la koy loué ci Amadou la koy loué léegi Amadou mooy jël oto yu yu ko Macky Sall jox loué ko gouvernement bi ñu jël ay milliards ci gouvernement bi jox Amadou Amadou dem dugal ko ci banque yi yóbbu ko Arabie Saoudite wala mu yóbbu ko ci golf bi wala mu yóbbu ko Dubaï ah, ñu blanchir xaalis boobu noonu wala ñu dugal ko ci seen banque bi blanchir xaalis boobu nga wax nañ leen banque boobu fay sàll timboo ñoom ñoo fa nekk donc jàpp leen ni oto yooyu ñuy wax noonu ay oto la yoo xam ne Amadou Sall moo koy loué gouvernement bi waaye Macky Sall ko jënd jox ko Amadou Amadou di ko gouvernement bi xaalis bi di jógee ci gouvernement bi di ñëwaat ci Macky Sall donc Macky Sall moom du doyal mukk mukk mukk c'est l'un des plus riches du monde l'un des plus riches de l'Afrique de l'Ouest l'un

boo ma wooyee ma wax ko ni waa ma expliqué ko du Amadou yow sa oto yi oto yooyu noonu ngay yor kan kan moo koy jënd ci yow sa magu jabar sa magu jabar yoru fukki dërëm Macky Sall moo koy jox mooy tëddee sa jabar di ko jox ay di ko wurang-wang di ko jox ay millions muy jëndaat say oto kon yéen seen biir la comme da ngay jooy rek naan wala naan sama papa day wurang-wang sama magu jabar noppul ca xaj duusul ca loolu man maa la wax te xam nga lu ma lay wax te dama koy répété waat Macky Sall day wutang wang sa magu jabar te sa magu jabar dafa am jëkkër nekk mu bàyyi Macky Sall bu koy wutang wang di ko jox suñu alal on avance donc voilà donc mu tax Macky Sall imposé au gouvernement ay location de voiture parce que Amadou Sall ak jabaram pétrole bi gaz bi famille Faye Sall Timbo ñoo ko yor patrimoine bâti famille Faye Sall Timbo ñoo ko yor ak ñi nga xam ne mooy Eden Perez ak Gabi Perez waxoon naa leen ko armement yi écoute yi déglu yi espionnage yi lépp famille boobu moo ko yor famille juif bi famille israélien bi famille sioniste yi ñoo ko yor dañ leen fi indi ñoom ñoo fa nekk moom mooy Eden Perez mooy doom bi Gabi Perez moom mooy baay ji Gabi Perez moom moo nekk parrain wu Amadou Sall Gabi Perez mooy parrain wu Amadou Sall AD trade AD trade AD trade lol, AD trade que ko Eden Perez la Gabi Perez duñ fay impôt duñ fay taxe duñ fay dara plus... luy euh, bâtiment légui ñokay tabax ñi ngi tabax en face palais building bu nganda pour team palais pour bëss bu Macky Sall daano ñom dañuy taxaw team palais ba di ñuy palais ñuy palais attention immeuble bi nek en face palais ñukay tabax bu ko def gratte c'est pour espionner ki nga xam bu dee Macky Sall dafa daanu Ousmane ko ñëw fa dinañ ko supervisionné one by one one by one di ko surveiller di ko xool di ko lijjanti immeuble boobu noonu waa Eden Perez moo koy tabax AD trade doomu Gabi Perez ñoo koy tabax pour dem di espionner ëllëg ki nga xam ne moo war a nekk foofu noonu nga xam ne buñ ko bëggee pour une question de sécurité national loolu warul am Macky Sall nangul na ñooñu pour ñu tabax ko mu jitu mu ne ñu mun a palais de la république di fa xam lepp lu fa nek donc attention à vous attention pour la sécurité nationale donc voilà donc marché wax nañ la marché blanchiment d'argent. bi famille Faye Timbo di def euh, dinañ ci gëna ñëw ak ci l'affaire Eden Perez euh, ak Gabi Perez Dom ak papa ngeen xam ko donc euh, on va Li dama ci li li mën def vite fait après ñu dem ah. ok Euh ki nga xamni mom moy euh, marché état yëpp Macky Sall mo koy gagner. ay nitam marché état Macky Sall du la ko jox bu da nga jóge fé rek sa marché Ñom dañoo créer sen ben gang moy la famille Faye Sall Timbo ak Sek. Ñom Malik Sek. xam nga xom ba xam xam ngeen leen xam ngeen Malik Sek. Malik Sek doomu ndeyu Marème fay Sall ñoo bokk benn yaay Omer Seck moo leen jur bu euh, PCA Petrosen nee naa leen Omer Seck dañ ko dàq Petrosen lu tax <laughs> parce que dafa teg yaayu Marème fay Sall gars yi bule ko kajj ko kooku nag ñett doom la fa am yu sant Seck benn jigéen ñaari góor kii nga kii di euh, Malick Seck ci famille boobu la bokk bàyyi mooy Omer Seck mooy bras droit wu Marème fay Sall kooku lépp lu nga xam ne ñi ñiy jege Marème fay Sall moom moo fa nekk caga bu bon la dinaa ñëw ci yow yow Malick maa ngi ñëw ci yow xaj bu dee bi donc déglu leen bu baax donc marché d'état yi ñoom ñoo koy gérer te dañ ci am Macky Sall da ci am 80 pour cent bu la joxee marché 80 pour cent wax naa leen blanchiment yi wax naa leen tamit Macky Sall day gérer marché état yi di di ci am pourcentage am moom famille am moom famille am

bu ñuy Zower El Hashimi. suñu que ah, le gouvernement bu Joh, jox ki nga xam Pape Samba Mboup wetu Vanvo boo tourné mel ni koy dem Vanvo Lamine Gueye kër gouvernement bi jox ko ko de mu jël ko jaay ko nar bi nar Zower El Hashimi. mu tabax ko immeuble <laughs> mu tabax ko immeuble Nar, bi daane tabax ko immeuble suñu kër ñun gouvernement donc président bi yàlla ko yàlla def Ousmane Sonko jàppel ni kër Jower El Hachimi bu nekk wetu Lamine Gueye immeuble boobu terrain wu état bi la gouvernement bi kii di Pape Samba Mboup moo fa dëkkoon moom moo ko jaay jàppal ni suñu kër la suñu terrain la fexe leen nuñ ko nangoo ci naar boobu nii di Joël Hachimi te yóbbu Pape Samba Mboup justice pour mu wax lan moo tax mu jël suñu kër googu noonu luy patrimoine bâti du gouvernement jël ko dem jaay ko naar boobu di Joël Hachimi mu tabax ko immeuble Pape Ndiaye styliste bu nekk France Macky Sall moo ko jaay kër bu gouvernement bi kër goo xam ne Edouard jaata moo fa nekkoon bu euh, baayam di euh, Benoît Diatta Benoît Diatta Edouard Diatta yoroon nañ kër gouvernement bi ñoom ñoo ko moomoon Macky Sall jël ko nangu ko muy patrimoine bâti mu dem jaay ko Pape Ndiaye di styliste Macky foqarti ko jaay ko Pape Ndiaye styliste kër gogui it ñun ñoo ko donc Pape Ndiaye styliste tailleur famu yor Macky Sall jël te kër kër gouvernement bi buñu tab ci patrimoine bâti bi nga xam Sénégal la ko moom mu jël ko jaay ko Pape Ndiaye ah nañ fexé tout pour mun récupérer kër gogou noonu euh, nga xam ni Pape Ndiaye mu ngi fa di styliste bi ñun ñoko mom ñun gouvernement ñun sénégalais ñoko mom donc lepp luy scandale foncier et financier bénéfice ak dividende yi day dellu ci ki nga xam ne mooy euh, Macky Sall léegi nag. nu mu koy wax Abdou Karim Fofana moom lañ joxoon directeur patrimoine bâti sal bulo yëpp Abdou Karim Fofana moo ko def patrimoine bâti kër yooyu yëpp Macky ñu gouvernement bi moom ko ñu jël ko jox ko ay doomu aadama jaay leen ko Macky Sall mel nu ko ko moom dilapidé suñu patrimoine bâti boobu la quatre-vingt-dix pour cent si sal bulo yooyu yëpp Abdou Karim Fofana moo ko liggéey bu mu ko liggéey ci la jël yóbbu ko urbanisme Abdou Karim Fofana dem urbanisme Je suis ministre du commerce urbanisme habitat vous Macky Sall pour Abdou Fofana Fofana famille rafet suñu suñu terrain patrimoine patrimoine national famille Timbo Fofana mais Abdou Fofana c'est un voyou c'est un faiseur de sale coup ministre du commerce et de la consommation des PME porte-parole gouvernement Abdou Karim Fofana cité Djili Mbaye le dëkkoon cité Djili Mbaye en face Yoff en face Almeri. koñ bu jàkk gis nga koñ bi bu jàkkaarloo Almere koñ bi sax boobu ngay dugg bàyyi ko tourner premier koñ deuxième koñ première maison deuxième maison à gauche Fofla Abdou Karim Fofana dëkkoon ak baayam ak Yayam. deuxième maison à gauche en 2012 laa leen expliqué Abdou Karim Fofana bi ngeen di gis mu tey tabax na ko R plus 3 ko këram boo génnee ci angle bi am na ngandam maami xeer booy xool leen e eh, yoof yoof yoof daw leen yoof cité Djily mbay dem leen ngeen xool en face ci euh, premier koñ bi njëkk jàkkaarloog armeel ya boo duggee premier koñ deuxième koñ premier gàlle deuxième gàlle à gauche foofu la Abdou Karim Fofana dëkkoon ci coin bi ci coin bi am na ngandamaami brique foofu la Abdou Karim Fofana doon toog matin midi soir ci xeer ba xeer ba sax moom lañ ko déjee taatu caleçon bi taat yeeg caleçon bi xeeñ yëpp yu muy xeeñ yëpp xeer xeer boobu xam na ko xeer boobu boo ñëwee dana la Abdou Karim Fofana Fofana Fofana xeer boobu noonu xeer ba léegi xeer baa nga fa Abdou Karim Fofana silibam bi xeer bi xam xam na xet gi bu toogee rek dina xam xet gi caleçon Abdou Karim Fofana xeer boobu xam na ko <laughs> Abdou Karim foofu rek la doon toog yore yore machine portable di góolu internetu jàmbur yi Abdou Karim Fofana mii ngeen gis tey xeer boobu nekk ci bopp koñ bi ci bopp koñ bi fu mu dëkk deuxième koñ ci bopp koñ këram deuxième kër deuxième koñ deuxième kër à ci bopp koñ bi am na xeer boo fa ne ba léegi boo leen fa toogee xeeru Abdou Karim Fofana lañ ko tuddee foofu la doon toog yore benn machine portable di góolu internet di fa góolu ay internet di internet jàmbur yi wifi jàmbur yi di suba ba guddi di góolu wifi jàmbur yi Abdou Karim Fofana mii te li ñu leen di wax en 2012 politique deful dara ma nga fa tok di goul internetu jamburi Abdou Karim Fofana di lambatu internet yi bu soxla won café en face xair bi dafa amone ben boutique boutique wuri lañ koy woyé boutique wuri fofu la Abdou Karim Fofana don dem di mourinho café do am sax lu mu jëndé café bu 50 wuri Abdou Karim gis na la ngay wër ci boutique mba jaar nga ci wuri rek jox ko xalisam Abdou Karim gis na la ngay wër ci boutique nan da ngay xol prix mba jaar nga ci wuri wuri yoreel nga ko de wuri yàgg na laa jox kafe de yàgg na laa jox soow ak mbiskit en 2012 damal daloo ko xaalisam que butigu Pa Diallo lañ ko woowee butigu Pa Diallo am doomam bu fa nekk ñu naan ko wuri butigu wuri Pa Diallo moom moom boutique bi ñu naan ko boutique wuri Abdou Karim jógal ci xeer boobu ngay doon toog di fa doxat sa caleçon yi di fa xeeñ sa slip bi nga jóg nga dugg boutique wuri nga jaaraale fa comme yaa ngi wër ci boutique naa da xool prix nga delloo ko xaalisam ndax yàgg nga faa moriñoo café njëgu kafe sax amoo ko woon wallahi en 2012. en 2012 Abdou Karim Fofana amoon na problème mu fukki dërëm pour jënd café wuri yaa gën la dimbale. wuri nag waxuma yow saa yoo leen déggee tur rek dam commencé waaw yow yaa wax ki barke alxuraan wuri waxuma. billahi wallahi wataalaahi loo def wuri yaa ko tooñ wuri waxuma wuri ba léegi mi ngi fa. en face euh, euh, xeer bi damal nga delloo wuri xaalisam ba nga ko yaral Abdou Karim damal delloo wuri xaalisam butiku Pa indil nga ko ay problème di jo ju fa ñu la jox yëpp ba léegi sa kay sa turang foofu ci kayit ga kayam ba kaye kaye wuri ba say turang fa damal delloo ko xaalisam gis naa la nga wër ci yeneen boutique yi ba léegi gisuma la boutique wuri damal nga nga delloo ko xaalisam waaw voilà waaw ak fa nga daan capté u jàmbur ya waaw Abdou Karim en 2012 ma ngay naani ngelaw musul dugg ci politique donc quatre-vingt pour cent njublang yi nga yi nga xam ne def na ko patrimoine bâti urbanisme loolu lépp Macky da ko fa tegoon pour mu blanchir lépp luy mafia ak scandale foncier scandale foncier yu mag famille Faye Sall Timbo Abdou Karim Fofana lañ fa yóbbu patrimoine bâti urbanisme gis ngeen nuñ booloo patrimoine bâti urbanisme patrimoine bâti mu def fa liggéey bu salte pour la famille Faye Sall Timbo jox leen lépp lu patrimoine bâti ñu yóbbu ko urbanisme mu jox leen lépp li nga xam ni sénégalais yi moom lañ soxla donc kooku noonu en 2012 da doon toog foofu noonu ci xeer ba ubbi portable am mooy cité Djily Mbaye di capter ak dugg ci biir di ñaan café voilà mi ngi noonu donc boo leen demee xeer baa nga fa ba léegi wuree nga fa ba léegi butigu jàlloo nga fa pas jàllo ba léegi mi ngi fa donc boo demee rek di ngeen gis loolu moom <laughs> ma nga fa donc Abdou Karim Fofana bii nga xam ne tey jii moom mooy wudang wang Zeyna Ndour Abdou Karim Fofana tamit jàpp leen benn affaire Abdou Karim Fofana xam nga lan moo ko dugal ci politique moom moo yore woon saagu moor ngom moor ngom wallahi billahi Abdou Karim Fofana moo doon daw di ubbil moor ngom buti di ko ubbil oto Abdou Karim Fofana mii moo doon téye saagu Mor Ngom di ko ubbil buntu di ko tëjal buntu Abdou Karim Fofana mii billaahi wallaahi wa taalaahi Mor Ngom bi nga xam ne ñoom rey nañ ko ba pare dugal ko pale dàqu di di toroxal ko tot tot tot tot ndax affaire yu jigéen Mor Ngom mii Abdou Karim Fofana moo ko doon ubbil porte mu dugg mu tëjal ko ko yoral ko saagam di ko ko jox Abdou Karim Fofana moomu moo nekk tey nee na ministre la <laughs> ko kookoy Abdou Karim Fofana tey moom mooy Wudangwang ki nga xam ne mooy Zeyna Ndour ndeysaan xaalis amul xet xaalis amul xet illaahi mooy Wudangwang Zeyna Ndour de waaw Abdou Karim Fofana Abdou Karim Fofana Abdou Karim Fofana voilà